action gouvernementale amaana mën na gën a xam FMI suñuy jaxateewu ci am <laughs> moom dem na ba ne gaa yi yàq-yàqu yi fu ñu ko natt weesu na xam nga loolu alalu réew mi xam nga loolu aussi day faatu Ousmane Sonko révélation la doon def ba nit ñi xam ko waaw ñu ngi manque pétrole bi mm. Mamour Diallo jot na quatre-vingt-quatorze xam naa rapport ma mbay ba nit ñi xam ko dara du ci dëgg léegi nag mu nekk premier ministre kenn soxlaatu ci moom révélation xam nga premier lan la war def mm. jëf jëf la te bàyyi meeting yi muy def grand théâtre ak dem Colobane wutu fa dara dem di def ay révélation ci ci xaw ma Anse Bernard la ko xaw ma. Hmm. et puis Anse Bernard gi mu dem hôtel bi wax ab sud africain ko moom. kooku lan la ko lan la ko euh, nam tuddati asalaay gën a sañ ci Sénégal ba mën a tabax ci domaine public maritime te sud africain bi sañu ko. ab premier ministre du defee révélation hmm. premier ministre day liggéey. lii muy def di Tambambala ko taxawallu na def déclaration de politique générale wax fi mu toll fi mu gisee réew mi fi mu toll ak fi mu ko bëgg a yóbbu ak naka la ko fay yóbbu maanaam nag député bennoo yee nga xam ne daa defee ne bu delloo daañ ko fay bor bañ ba mu fa doon leble loolu warut tax mu violer la constitution benn jomaay fayit nag parce que Ousmane Sonko ko tànn ba mu nekk candidat Ousmane Sonko digal Sénégal yi ñu woteel ko bu mu nekk premier ministre président auprès du premier ministre bu mu tax nag mu mu seetaan Ousmane Sonko muy piétiner la constitution on n'acceptera jaar ba noppi doy na sëkk ñoom Ousmane Sonko na def déclaration premier président la na signé décret ordre du jour unique convoqué le le une session extraordinaire bu def déclaration ba pare ñibbi dem këram. Sénégal yi xam gis-gis bi mu am fekk Sénégal ak fan la ko a yóbbu. xam nga politique générale kon lii nga xam ne moom la conférence des leaders de de Diomaye président dof yi waxu dof yi ñu wax duñ ko wax. parce que ñoom respecté wuñ Sénégalais yi. Ah, buñ naan seen bilan ñu di ci boole dem dem commencé liggéey BRT. waaw mais mise en service nañoo bañ a respecté waa waa droit la. Mm. waaye nañu respecté le peuple sénégalais nañu respecté la faculté des sciences économiques nañ fekk nañu respecté waa ENAM nañu respecté waa ministère de l' et des finances et du budget. parce que ñooñu nag ay borom xam-xam ki nga xam ne te ñoom ñaari président yi président ñu waxi dof yu mel noonu kenn waru ko publier nee naa la ils ne sont pas tenus man damaa jàpp ne sax Bassirou Diomaye Faye après cent jours lan la war a def un discours fondateur wax yéeneem ci réew mi waaye ba Bassirou toogee ba léegi ay woye woye rek lay wax ak tukki Diomaye moom kii nam tal Sonko moom di xuloo mais fasal nañ ku ne xuloo naa xuloo naa presse bi xas magistrat yi ku ne mu xabal la mais rapport yi ñu fësal nag yow xam naa di nga ko rafetlu ndax. wàllu reddition des comptes ñoo na la daa am rapport bu des. man rapport euh, cour des comptes. nag génn na cour des comptes cour des euh, comptes génn waaw. xam assemblée laa nekkoon cour kenn pour def déclaration de pour pour publier ay rapport am. Mm. of nag du xaar ndigalu kenn pour pour def rapport beneen ñi nga xam ne ñooy xaar ndigal muy IGE. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye moo jàkkaarloog Sénégal yépp ne dana dana publier rapport yi. Mm-hmm. ma di ko ñaan mu. mu déclassifier tous les rapports de l'IGE dëpp bi ñu ko créé ak léegi. comme aussi foofu si muy wax nañu créé une commission nationale de de de vérification des des attributions. boo xam ne ay jaamur na ci bokk ay ay journaliste ak ak état ñu xool 1960 ak léegi kan a fi jëlub tere su boobaa moom ci boppam danañ wax quatre cent yi mu am Sandiara lu tax mu am ko trois mille yi mu am lu tax mu am ko deux yi am Thiès lu tax mu am ko ak kër gi mu ne syndicat bee ko ko may ak kër gi mu jaay Cheikh di ba te doon ko nëbb nañu bàyyi seen caxaan yi te liggéey euh, très bien euh, ci ci ba tey euh, ci le président de la République gis nañ ne ci conseil des ministres bi sax mu ngi koy rappeler participation ci soixante cinquième sommet bu chef d'état su présidence bi moom euh, le président de la république mais également ñu tab ko pour mu nekk facilitateur euh, pour euh, ñi nga xamante ne génnoon nañ ci CEDEAO dellu si mu mel ni am na ñoo xamante ne ne nañu ko jàngatee moom mooy c'est l'agneau du sacrifice moom le président de la république face à ces vieux de la CEDEAO non non no no l'agneau non non foofu nag ay ay kilifa fa nekk ah, ay Ouattara président Niger c'est kilifa moo ko gën di doon ko ne nag pour ñu yónni ko c'est normal ah, ah yow suñ ci Afrique <laughs> mën nañu mais xaaral xaaral ma ne moo fa gën a doon gone moo fa mujj falu te nag jàpp naa ci ñi gën a baax nu mu faloo la bokk. voilà ah te ñoom dégg naa ñoom ñenn ay panafricanistes de gauche lañ maanaam jege nañoo pour ci si yooyu. ah xëy na loolu moo tax bu ñu demee xëy na dana ma wax ak ñoom mais la réalité du problème c'est que ñi Mali. Niger Burkina Faso nguuru alkaati yee fa nekk moo fa war a jóge et nag li garaaw mooy am na benn avocat boo xam ne ci ñu doon défendre Ousmane Sonko la dañ koo enlevé est-ce que dégg nga Ousmane Sonko wax ci ak waxam ju bari ji dane miix ñoom si digga sama ñoo ko doon dem manifester pour di soutenir ba tax ay malien di dem ambassade du Sénégal di ay mari pardon Burkina bi ambassade du Sénégal di xas ba léegi ak Ousmane Sonko wax ju bari ji hmm. di yàbbi ci yooyu yàbbi ci dem di ganale ay Mélenchon muy ñëw fi di dagganal góor jigéen. <laughs> non nañ bàyyi seen ko caaxaan yi xam naa la ñuy def si président ci waxtu euh, bareetul Sénégalais yi ñenn ñi bokk parce que ku ci nekk ak gis-gis wóoro euh, dañu bëgg.